vous remercier d'être présent et euh, vous saluer aussi la qualité des discussions que nous avons eues. Nous avons eu des discussions très transparentes, nous avons beaucoup échangé et à l'issue de ces échanges, je voudrais porter à votre reconnaissance les recommandations que le euh, gouvernement entend mettre en œuvre avec euh, les ministres qui sont là, que je félicite, de même que le délégué au pèlerinage, je sais qu'il travaille d'arrache-pied depuis très très longtemps. Il a la confiance du président et je voudrais en son nom vous renouveler la confiance du président et saluer aussi les affaires étrangères qui nous ont accueillis aujourd'hui. Et c'est avec euh, beaucoup d'émotion que j'entre dans cette je viens dans cette salle euh, d'appartement que je connais assez bien. Et je disais tout à l'heure au secrétaire général que j'ai connu d'ailleurs dans alors qu'elle était, était dans d'autres fonctions, que c'est un ministère où il y avait de grands commis de l'État, de grands cadres, que je voudrais saluer. Donc, la première recommandation, il est demandé au ministère des Affaires étrangères de veiller au respect des délais prévus pour le début et la clôture des inscriptions. Donc, ce sera au 15 mars. Il prendra les dispositions nécessaires pour faciliter toutes les opérations d'enrôlement des pèlerins. Euh, la seconde recommandation est destinée aussi au ministère des Affaires étrangères qui prendra les dispositions utiles de concert avec les voyagistes privés à la bonne organisation du Hajj avec l'implication de toutes les parties prenantes pour la parfaite prise en charge de tous les pèlerins en mettant en particulier sur le en mettant un accent particulier sur le transport, l'hébergement et la restauration. Troisièmement, le ministre des Affaires étrangères renforcera la communication autour des préparatifs du âge, en tenant compte des délais fixés par les autorités euh, saoudiennes. Quatrièmement, le ministre des Finances prendra les dispositions appropriées pour finaliser la procédure de mise en compétition des banques en vue d'obtenir le taux de conversion fixe du RIAL. Il prendra les mesures diligentes pour mobiliser à temps les ressources destinées au pèlerinage. 5. Le ministre de l'Intérieur mettra en place un dispositif spécial de production de passeports pour les pèlerins et veillera à assurer un accompagnement sécuritaire aux pèlerins au départ comme à l'arrivée. 6. Le ministre de la Santé est chargé d'élaborer et de diffuser un protocole sanitaire et mettra en place des équipes chargées de la visite médicale dans les localités prévues à cet effet. Enfin, le ministre des Transports aérien prendra les dispositions appropriées pour la préparation et l'opérationnalisation du terminal pèlerin de AIBD. Il prendra les mesures idoines pour une bonne participation du pavillon national Air Sénégal à cette édition 2024 du Hajj Lolo moy cette recommandation yi nga xamné def nañ ko may sant ñep di ñep que eh, ni ko baxé def rek bi lu am solo la ci ëpp solo la bokk mooy juróomeelu ponk bi te jullit bu nekk bëgg koo def gouvernement bi di ci dugal loxom lool ndax euh, réew mi euh, réew diine la moo taxoon président de la république Macky Sall wax nañu dañ ñëw dajeeg yéen waxtaan ak yéen xool fi ñu toll ci préparation yi euh, ci liñ fi dégg ak li ñu gis ñëpp nangu ko mooy préparation yi tàmbali na bu baax que délai bi sax daanaka jeex na waaye président waxoon nañ leen yokkalaat tuuti kon mën ngeen dem ba fukki fan ak juróom ci weer wii di ñëw muy mois de mars njëg bi nag prix de base bi ñu jàppagum léegi ñeenti million la ak euh, juróom benn fukki junni mais njëg boobu danañ ko xoolaat ndax moo tax ma laaj la léegi nga wax ñu exactement njëg bi la moo nekk ci biir pour ñu mën ko euh, saytu bu baax a baax a baax xool nañ koy defee kooku bëgg nañ ko bëgg naa ko jot euh, balaa altine comme ça àllarba bi ñu mën ci ma mën ci waxtaan defal ay proposition ci conseil des ministres pour ñu xoolaat ko bu baax bu nekkee loolu moo war a wéy wala da ko war nañ ko mën a wàññi donc incha allah ñu ngi koy négandikoo euh, leneen li ci topp am na loo xam ni wax nañ ko Air Sénégal ndax ren ñoom la ñu tànn pour ñu yóbbu li nga xam ne mooy sunu wàll ci aaj yi ci ujaaj yi wax na leen ni jël seeni motukaay en tout cas liñ ñi won ba tey ji dal na xel laaj na ñu gën leen a jàppale gën leen a dooleel ndax yëf yi mën a dem niñ ko bëggee mooy li nga xam ne loolu la président bëgg incha allah gouvernement bi dina ci dina ci taxaw maintenant wax nañ leen nag nañu waxtaan ak privé yi ndax ci wàllu commerce am na loo xam ni toujours kiy jaay ak kiy jën dañ koy seq moo xam ci wàllu remise la wala ci wàllu réduction wala yu mel noonu kooku am na loo xam ne mën ngeen ko waxtaanee wax ñu li ngeen d'accord ci fii ak altine pour loolu it ñu mën ko tënk topp ko pour ku nekk li ci sa wareef nga def ko mais fi mu ngeen toll nii waxtaan wi ci yéen ñaar la war a nekk kiy jaay ak kiy jënd et Sénégal donte état moo ko moom waaye société nationale dañ ko jox euh, jumtukaay yépp pour mu négocier des prix kon da ngeen ko pour remise yi ngeen buñ ko mënul def mu am parce que euh, da ngeen di jënd bëgg ngeen li ngeen di ngeen am ci dara bi il faut que Air Sénégal euh, waxtaan ak yéen euh, ci Le ministère de la santé aussi yi nga ministère bi jël pour jàppale tout comme au niveau du ministère de l'intérieur li qui ci le passeport yi ak wàllu sécurité bi nga xam ni yoral nañ ko ujaaj dem ak bu ministère des finances ci la comme moo xam douane la bu ñuy demee ba ñë ñibbisi wala ni ñuy fexee ba alal ji dem fof, ndax lolu aussi ministère des finances dina ci liggéey war nañu wax ñoom aussi banque yi nga xam ni mën nañu jox njëg bi yomb pour sunuy sunuy ujaaj may sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla mu may ñu ñu yegg ci aj bi ci jàmm ak salaam def ko ci anam bu mucc ayib sénégalais yépp dem ak ku dul sénégalais sax bu ñu demee liñ fa ñaan yàlla nangu ko ku ci nekk ñu ñëw ñi ne ci ñi ciy sénégalais ñibbisi fii ci jàmm ak salam ñi fekk seen njaboot ci jàmm ak salaam fekk réew yëpp ci jàmm ak salaam waaye keneen ku dul sénégalais boo demee boo ñibbee nga fekk sa njaboot ci jàmm ak salaam kon may sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam.